lañ ko déggee waaye nag murit ndigal ne amuñu kenn sëñ Muntaxa rek lañ am kon nag lu mu bëgg ci marché bii dañ ko ciy fekk si bu xëyoon tey ne dellu leen seen dëkk maam ba ngeen jóge woon ñu dellu ci fii nag yàgg nañ fi lool yor nañ ay gone yu ndaw suñu teraanga fii lay jógee bu xëyee ba wàcc kenn duñu juuti ñun am yóbbu sunu nu fi ne ñuy jël rek du woon di leen ñibbi waaye nag sëñ Muntaxa lu mu bëgg rek ñu fekk si ko joxagul ñu fenn nag waaye bu àllarba ci ngoon tey suba. incha allahu rab lu mu fa am danañ ko yóbbu fu mu nu joxoon ñu dem fa fu mu nu joxut ñu da day dékk suñu loxo moom rek mbàkk bàll xëccewu noo moom dara jébal nañ ko suñu lépp waaw jërëjëf. mu dimbale na ñun ñun jigéen ñi ndax jigéen amul dara danoo néew doole fu ñu mën a jàppalee ba suñu liggéey bii ñu mën cee nekk nem ci nekk wante du yà dara du ñu yàqal ñu ngi koy ñaan ñu jàppalee na ko ñun ndax ñun xamuñu fu dul marsaw kaas ñu ngi ñaan suñu laalee ba pare ñun ñu mën a dimbalee waat ban mën a toogaat di liggéey ten organiser ko ñu defal ñu ko ñu ngi koy ñaan sëñ Muntaxa nag nun ñu mën a dimbale la ndax moom borom yërmande la xam na ne lu mu def lu moom du doon gaan ci ñun sëñ Muntaxa moom lu mu digle du doon luy lor nit mukk ndax borom yërmande ñu ngi koy ñaan rek ñu gën ñoo jàppale rek dimbale nu waaye ndigal li moom ñun ñu jigéen ñi jaaykati gure yi kenn duñu jiitu ba ak alxamis lu fi waaye am di ko denc ba fii ak amaan ndigal na ñëw leen ci marché bi ñu doog fii ñëwaat bu soobee suñu borom. ah mu mu de ndigal jëfe ndigal rek buñ ne woon génn leen dëkk bi sax. dañuy daal di génn dëkk ba man na lu ma fa am bu na suba la ma laale ko ca dem yàgg naa fi lool nag ndax ñaar fukki at ak juróom-ñaar am naa ko fii waaye buñ ma jógloo ma daal di jóg li wax daal neen sëñ bi nee daa soxla mbedd yi la doon wax lewenkaat ñëpp dañuy jóg ñun nag amuñu fenn fu ñu jëm ci lañ yor suñuy kër ñaar fukki ak juróom am nañ ko fii amuñu fenn fu ñu jëm jaaxle na nag waaye murit ndigal bu ndigal dikkee da nga jóg rek daal di jëfe ndigal waaw ñu ngi jaar waaw yaa ngi si ah sant yàlla rek xam ne lu war la xañ daa gën si ñun c'est que yëkkati marché bi gënalul marché ambulant yëpp nag mais it mënul ñàkk xañ na dañuy defar rek loolu rek lañ si gis ta ndigal la ndigal jafe. en tout cas yëkkati bi daal lañ dégg mais yeneen renseignement amaatagul ci dañ koy yëkkati daal wax nañ na ko mais amaatul benn renseignement boo xam ne mooy loolu. waaw ñu koy waajal bu baax wax dëgg yàlla ndax damaa jàpp ne ndigal bu jugee ci sunu taxaa jëfe rek lañ war a def. ndax suñu taxaw bi nga bi nga jëlee lépp jox ko man yaakaar naa ak lépp lu mu la mën di wax rek da war a jëfee. non waxuñu waxuñu feneen moom fu ñu jëm wax dëgg yàlla waxuñu fenn fu ñu jëm dañ ne dañ ñu fiy jëlee rek kenn xamul fu ñu jëm na wax dëgg yàlla mais na wax dëgg yàlla ñuy ñaan sëñ bi su suñu mënee jàppale ndax fii rek la ñuy nit ku nekk moom fii nga mën a tedd bëri na ñoo xam ne ñii leen di joxe alal pour ñu bëgg leen yóbbu réew mi mais ñoom soir seen soir fii la ni rek ñu lay jox passeport bëgg nga dem mais sa soir fii la kon nag wax dëgg yàlla na ñoo xam ne fii leen gënal fii lañ bëgg a te marché bi la ci Sëñ Fall def moom wax dëgg yàlla ah doon na lu doon na lu neex ci xol yi. ah xanaa di ko préparé jàmm salaam rek di sant sëñ Mountakha moom ndigal moom bu defee rek ndax ay taalibe lañ ndigal moom bu jubee dañ koy nangu rek di ci ànd ak sant te koy ñaan bu ñu yëkkatee nañu wut fuñu yóbbu rek lii rek la ñu sàkku ci moom bu buñ jëlee ambulance si marché bi nañu wut fuñu yóbbu pese dafa ñu fa ñaan ñu toog fa fu ñu toogloo ñu toog fa Mbàkke Bala ñun jigéen ñi bëgg dimbali suñu borom kër yi suñu njaboot yi ñoo tax toog kon nag nañu bàyyi xel bu baax ndax dëkk bi kat mu nañ fee agressé mu nañ fee sàcc mu nañ fee mooy yàlla liggéey lañ am te okaas gi lañ ko yaakaare kon alhamdulilahi rabil alamin ko joxe Baay Faal yi dañ topp seen ginnaaw nag fas yéene bala ñu fee ñëw moom luñ fi bëggul duñ ko fekk leen siyaare bu baax a baax waaw ko waaj rek incha allahu rabbi te fas yéene jëfe ndigal bi incha allah rabbi ko sëñ bi bëggee rek danañ ko na métti na trop wax dëgg yàlla ndigal lu lu la lu métti trop sax. danañ ko jëfee nag incha allahu rabbi waaye wax dëgg yàlla moom mënoon nañ cee dawal yërmande daal ndax boo xoolee marché bi bu doon comme sama morom yi sax ñoom xëy na yàlla may na leen ñoom yoruñu kër yoruñu daara mën nañoo génn dem wutuwaat feneen wala ñu dem maçon ji wala minebar wala ñu génn dem Dakar waaye boo xoolee ci suñ mag ñi ñi nga xam ne ay mag lañ ñoom ñu nekk euh, ñoom waaw waaw ñoo ngi waaj jeudi vendredi la nga xamante ni carrément dañ jox Baye Fall yi pour que ñu yi nga xamante ni ñoo nekk ci corniche yi ak marché yi ñu moom pare nañ incha allahu rabi jeudi ku wàcc nga jël say bagage mën koy yóbbu mais après bi li ñu bëggoon a comprendre ñi nga xamante mooy marché ambulant yi tey buñ jugoon ci marché bi ban marché la ñu war a mën a yóbbu wala aussi tamit buñ jugee ci marché bi tey fan la ñu war a mën a dem foo xamante carrément dañ fa mën a dem daan suñ doole ñun xale yu ndaw lañ kenn ku nekk maam gën koo ndaw ci xale yi nekk marché occasion am ngay soxna même bu fekkee ne amulooy soxna am nga ay rakk yoo xam ni si ci yow la ñu yaakaar. ñu gëm suñ tubaa bëgg suñ tubaa lool bëgg dëkk bii nag ndax dëkk bi lañ am amuñu lu dëkk bi te bëgguñu leneen lu dëkk bi bëgguñu feneen tamit am fa dara pour dëkk suñ tubaa bii ñu ay ndaw màggee dëkk bi juddoo fi yaroo fi jàngee fi ñaan yàlla tekkee fi kawtali bii fi la ñaqee lépp lu jëfal suñ tubaa mooy tee sàcc mooy tee fen mooy tee wuruj mooy tee dem toog kër kilifa kër kër jàmm kenn du ko dungu ndax gëmuñu kenn ko du suñ tubaa te ñuy war a am gëm nañ ne suñ tubaa moo ñu ko jox ndax suñ diggante suñ borom suñ tubaa képp la fi doxale ci diggante suñ borom suñ képp la si doxale ñun ñi ñu masaami laay kenn waxaguñ ne boo jógee marché bi dina dére si ay weer wala dina dére si ay fan ngeen mën a ñëwaat wala boo leen jógee fii sañ ngeen a dem fee ngir liggéeyi fa ndax da ngay xam ne ki nga xam ne day xëy suba joxe dépasse wala di ko sàkku si marché bi ba ngoon jot wala mu a toog ba 11h envoyé dépassam kooku boo ko yëkkatee war a xam foo ko jëmee wala nga xam si loxo yoo ko teg wala nga am loo ko jox loo xam ne dina ko tax mu sàmm ak ngorom ba am ngorom du am si moom. waaw ñun pare nañ ndax suñ tubaab moo ñu gënal suñ bakkan yii nee naa la sànq sama biir lu ñu am suñ tubaab ñu ko gënal lu ñu mën a am suñ tubaab ñu ko waaye suñ tubaab mii lañ mënut a ñàkk ñun mënu ñàkk suñ tubaab waaye leneen suñ tubaab mën nañ koo ñàkk teraanga ji nga xam ne ñoom lañ am si dëkk bii bu ci nar a diggante suñu tubaa ñu bàyyi ko ak ñoom te cër ak suñu tubaa ñun ñëpp fa lañ nekk